فانطلاقا من قوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وقوله صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر أن يصل أن يصل المرء أهل ود أبيه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من هذا المنطلق يقول شيخنا في إحدى قصائده zur man tuhibbu wa in chattat bika daaru wa xaala min dunihi sahlun wa awaaru laa yamnacannaka bucdun min ziyaaratihi inna almuhibba liman yahwaahu zawaaru fa taxiyatun tayibatun min madinati tuuba almaxruusa taummu alaama wa taxussu alxaasa min alxalifa ahadu afraadi hadihi alusra almubaaraka wa ahadu sukkaani hadihi almahdarati alaamirati bi idnillahi taala alcheikh mohamadunil muntaqa bi wasitati sinwihi wa adudihi axiihi alsayid mohamadul bachir ibnu cheikh abdulxaadir ibnu cheikh ahmadou bamba الناطق الرسمي للخلافة العامة للطريقة المريدية وعضوية السادة الأفاضل وعلى رأسهم السيد إبراهيم محمد منتقى kama taxuluuna al aan huwa al ibnu al bikr lil xalifa wa cheikh Mouhamadul Fadil Mbakke ibn xafid cheikh Mouhamadul Fadil ibnu cheikh Ahmadou Bamba wa ahadu xiriji hadihi almaxdarati almubarakati alaamira alallaama al ustaas Mouhamad Moustapha Jatara amin maktabat cheikh Ahmadou Bamba wa sayid Shuaybu Kebe ibnu xafid cheikh Saalih Mbakke wa ahadu mustachaari rais aljumhuria al sayid Mouhamad Diop wa ahadu ahfadi abrazi masadir cheikh ahmadou bamba almaaruf bi cheikh bàcci diop xafid cheikh ibrahima almashari wala garabata indi an yarjaa nasabuhu ila hadihi alxaadira almubaraka wa majmuca kabira min alsaada alafid ajilla السيد عبد الأحد مكة حفيد الشيخ إبراهيم أخو الشيخ الخديم وأنا ابنكم هذا المتكلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فالشيخ الخليفة يحمل هذه المجموعة المباركة يحملنا رسالة حب وود وموروث موروث متبادل من الجهتين إلى هذه المحضرة المباركة محضرة المبروك حرسها الله تعالى من كل مكروه ومخوف وبارك في أهلها وإلى كافة الحاجيين الخديميين الأنصاريين من تبوأ الدار والإيمان هذا الجمع الكريم الذي يشهد القاصي والداني على فضلهم وعلمهم وكرمهم ورجاحة عقلهم وقيامهم بالمصالح بين الشعوب حيث كانوا ولا يخفى عليكم أن هذه شنشنة دأب عليها أسلافكم الحاجيين حيث كانوا سواء من في موريتانيا أو في غير موريتانيا fi mintaqatina amira insha allahu taala wa yastawi fi hadihi l awsaaf xaajiyu muritaani wa darmanko sénégal aw sugu fara sénégal law saxa taabir fa jazakum allahu anna wa an il mintaqa kulla xayr fa kaanu wala yazaaluuna insha allahu taala ulama rabbaniyin quraniyin jaamiciina bayna almacquuli walmanquul والقائمة تطول جدا لو أردنا سرد هذه الأسماء على كل حال نذكر منهم القليل والإشارة تكفي أمثال العلامة أحمد بن محمد ويمكن أيضا أن نقول محمد أحمد الحاجي صاحب منظور في الآداب وهذه الم... وهذا المنظور نظمه شيخنا الخديم رضي الله عنه في كتابه المعروف بنهج قضاء الحاج فيما من الأدب إليه المريد يحتاج yaqulu fi da fi daaxili alkitaab samaytuhu nahja qadaai alxaaji fi xasdi zarci cheikhina dalxaaji wa dalxaaji cheikh alxadim yushiru bihi ila hadihi alqabila almubaraka ay alqabila alxaajiyin walqaaima tatul kama qultu lakum anifan minhum almurabit baabu guldu xamdi wa minhum cheikh abdulwadud alxaaji alladi kaana cheikh alxadim yaqul abdulwadud yuhibuhu alwadud wa minhum cheikh abdullah walmuxtaarina maaruf wa minhum cheikh sidi ahmad mohamad wuld afulwaat ala kulli haal alqaimatu tatul jiddan wa sawfa naxtim wa yasil baytu lxasid ila aalimi alulama wa taaji ludaba mudarris lumma wa muallimi aljil al ustaaz al qaadi al muxtaar wuld abluul alxaaji wa hadihi wa hada bahrun la saaxila lahu yumkin an nasrida hada alxadis insha allahu taala ila alleyl wala yantahi wa alaaqatuhum bi cheikh alxadim alaaqa mutamayisa jiddan yudrikuha alqaasi waddaani fa baada zuhuri cheikhina alxadim radiallahu taala anhu kaanu min awaili man wafadu ilayhi wa aawawhu wa nasaruhu kama faalaw ajdaadahum maa rasul sallallahu alayhi wa sallam fa cheikh alxadim radiallahu anhu iltaqaa bi acyaanihim wa mashaayiqihim wastafaada minhum wa afaada wa baayacahu ajlaa'uhum wa saxibuhu sawaun fi marxalatihi almuritaniya sarsaara jaraariya المريعة أو ما بعد موريتانيا كجميع مراحل السنغال إلى أن تنتهي بمرحلة جارم المبارك هذه المرحلة المباركة الذي زاره فيها مؤسس هذه القرية المباركة إن شاء الله تعالى وكان لهم كذلك أيضا مكانة متميزة جدا يدركها كل أحد فالشيخ الخديم كان يعتني بهم كثيرا ويسند إليهم بعض أموره الخاصة فمن المعروف بعث بعض الحاجيين إلى الديار المقدسة للحج ومن المعروف أيضا بعث وفدا من الحاجيين إلى بعض الدول العربية كلبنان لاقتناء بعض لاشتراء بعض الكتب مع العلامة يوسف النبهاني وغيره وغيره وغيره وهذا يفهم منه أن العلاقة كانت قوية ومتميزة عن غيرها من العلاقات الأخرى أما المراسلات والرسالات والخوارق والحكايات التي كانت تدور بين الشيخ الخديم والحاجيين fa akbaru wa acdamu min an tudkara aw tuktaba fi sudur wa ma hiya qissatu alxalibi bi baid hadihi alqissa almacrufa cindakum للشيخ الخديم مع المرابط ولد محمد معروف وقصة الشاي أيضا مع العلامة أحمد ولد طلبة أيضا قصة معروفة وقصة تخطيط المسجد أحد مساجد الشيخ في السنغال مع العلامة الشيخ عبد الودود الحاجي معروفة إلى آخره وهذا غيض من فيض بل هو بحر لا ساحل له يمكن kama qultu anifan an an la yantahi insha allahu taala wa hakaza zallat hadihi rawabit matina mumtaddatun juzuruha abra alzamani walmakan fa kanat hadihi almahdara almubaraka mahdarati almabruk qiblatun liltalaba wa xalaqatu waslin bayna hadihi almintaqati kulluha lakin xaasatan talabat allati allazina yaqadimina min madinati tuuba fa ma zaala abnaau madinatina tuuba almahruusa yaxujjuunaha afraadan wa jamaacaat liyanhaluu min maciini hadihi almaxdara alsaafi taxta zilaali cheikhiha wa muassisiha alcallaama alwaalid alcheikh muxtaar wulu abluul wa kaana min abrasi ruwaadi hadihi almaxdara cheikhuna wa xalifatuna alxaali seyidi muhammadin almuntaqa ibnu seyid muhammadul bachir ibnu cheikh ahmadou bamba xafidahu allahu taala wa raahu faqad xalla بهذه التربة المباركة رفقة أحد هذه أبناء هذه الخارية وهو أحمد سيد محمد وأنا أدركته أتى هذه المحضرة الحمد لله وشرب من معينها الصافي ومكث هنا مدة في الخمسينيات حتى رجع إلى السنغال وصارت سنة متبعة أتى مجموعة من أبناء أهل طوبة كالعلامة السيد محمد المصطفى له وكالسيد شيخ جاي مريم المرحوم رحمه الله wa ka sayid cheikhuna lo hafid cheikh ibrahima mbakke wa ka sayid ibrahima mbakke maaruf bi koso gannaar wal qaimatu tatul hatta yasila ila al jalisi maana haalan السيد محمد مصطفى جترة وهذا قليل من كثير يمكن يفهم منه ما لا يفهم عند غيرهم فيمكن باختصار شديد نظرا للوقت أن نقول أن هذه المحضرة المباركة محضرة المختار والأبلول كأنها فيها البركة istijaabatan li daawatin daa biha cheikh alxadim radiallahu taala anhu haytu utiya muassisu hadihi almahdara wa huwa almuxtaar alablul utiya ila cheikh alxadim wa huwa shaabun saxiir yuqaal anna cheikh alxadim wadaca yadahu ala sadrihi wa qaala baaraka allahu fi ma huna wala shakka anna hadihi albaraka baaqiyatun insha allahu taala ila an yarisa allahu arda wa man alayha fa fi lxadis inna allaha yastaxyi an yanzica barakatan min mawdicin qad jacalaha fiihi wa fi lxitaam aqul walibnu in xaazama qad kaana xaa'izahu min almacaali abuuhu xaqaqa nasaba waltuf bina wa qawwina wa kun lana wa hab lana xusna alxitaami rabbana wa salliyan ala annabi wa sallimi waqti bihi xaajat kulli muslimi afsaxu almajaal li axi cheikh Moustapha Diatara li yukmila maa baqiya insha allahu taala